mais dama ne ci état bu sérieux naka nga mën a jàpp ay nit ñu taal bus ay nit lakk jot jot ci lakk ba ñàkk ci seen bakkan mhm. nga taxaw ne dañ leen di génne au non de quoi. taal université. au nom de quoi taal université au nom de quoi ndax lan ndax benn nit bu ngeen xam ne ni mënul wax dëgg mënul wax dëgg. Et soi-disant, on a créé ici une stratégie de la peur, de la, de la Mais unique. Cette stratégie de la peur, elle semble fonctionner sur certains. Parce sur que certains. intellectuels yu bëri bëri déserte nañu. nga xam ne mooy mooy mooy le champ euh, politique wala même le débat public moo ko ne tudd noonu. am na lu ngeen xam ne du suñu cër. man dernière fois su ma juumulee ba may ñëw ci plateau bi Maïmouna Ndour Faye moo ma invité. Mm-hmm. jour ba ma Maïmouna Ndour Faye invité ci plateau bi jour boobu ay Samba booy jóg ne dañuy dal suma euh, suma kaw. Euh, Euh, njaboot. mais mm-hmm. dañuy attaqué suma kër pour taal fay oto. te quelque jours avant demoon nañ ci benn këru kilifa Sacré Cœur kooku nekkutuloon sax maam du gouvernement ñu taal këram taal ay ba daal di taal le corbillard de la mosquée à côté. Ouais,